di nuyu nag ci turu day daayira Muxaddamatul Xidma bi yor jumaay Tuubaa ñu nekk fii ci kanam sëriñ bu Buso imaam mi nga xam ne mooy imaam yi jumaa ji yàlla dogal tamit muy njiital daayira Muxaddamatul Xidma ku ne xam na ne jamono toll na foo xam ne ay tolluwaay la ci biir réew mi ba ci bitim réew ci tolluwaay yu yëpp fenn fu ci nekk moom sëriñ Xaafiya ci turu daayira Muxaddamatul Xidma muy yëkkati kàddu ci ñi nekk ci biir réew mi waaye nag rawat nag ñi nekk ci bitim réew ci yàgg gu ànd ak daayira Moukhaddamatoul Khidma ci jëflante bu rafet ba waxtu nekk xel mboolem daayira Moukhaddamatoul Khidma ñi ngi nekk ci ñoom mooy moo xam réew mi moo xam Afrique ba Europe ba Asie ba Amérique ak Amérique gum ci man doon ñoom ñëpp sëriñ Afia fas yéene yëkkati ay kàddu ngir tolluwaay bi jamono toll. ngir jaajëfal leen ba noppi mastawu leen ba noppi ñaanal leen kon sëriñ Afee bisimilah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala asal anbiya almursalin wa ala alihi wa sahbi wa xadima umati wa sallam taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mboolem bokki jullit yi bokki taaliba yi nga xam ne ñu ngi nii dégg mbaa ñu ni seetaan ñu ngi yëkkati suñu kàddu di jot li nuyoo su nuyoo bopp ak de nuyoo Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak nuyoo mboolem membre daatul Moukhaddamatoul Khidma di ko teg ci loxo yi bokk taalibe yi nga xam ni ñoom lañ seqaloon liggéey bi ci biir réew mi ak ci biti réew mi di ko teg ci loxo yi Assane Diop kon mi nga xam ne moo coordonné daayira bi ci biti ngir mu séddal nu ko ci mboolem. réew yi bi nga xam ñoo soqal ak ñoom liggéey bi te ñu daan seen këm kattan ci jamono nekk waxtu nekk rawatina bu ñu mosaa toll fii te suñu natt boo xam ne dafa daj àdduna bépp ku ne xam ko ñëpp di ko dund xëy na ñëpp a koy dund waaye nag te ñëpp la metti waaye nag ñu ngi gën a masaw bu baax sun bokki taalibe yi nga xam ne day nekk ci biti ndax fu ne la mettee waaye nag noonu lu bon bon ñu ngi seen biir njaboot waaye ñi nga xam ne dañoo génnoon dem ci bitti daan seen doole nga luñ yore seen njaboot ak luñ liggéeyale sëriñ bi yàlla indi balaa ak natt boo xam ne tax na ñëpp nekk ci bi kër yi kenn génnut ngi leen di wax ni ñu ngi fii ci jumaa ji waaye ñu ngi leen di bàyyi xel fu ñu toll di bokk ak yéen coono boobu di ma saw bu baax di yëg ni ñu ngi bokk ak yéen maitre bi ñaan suñu borom mi nga xam ne itam moo ko tegee na koy teggi ci daraje Sëriñ ndax xam nañ ni yër nga ci jafe-jafe waaye seen xel nekk lu ma rek ci génn ba dawaat ci tool bi liggéey sëriñ bi rek moo ne ci seen xel kon nag sëriñ boobu yàlla leen doole wàllu dool leen leen ndimbal noonu day ñu ngi fii waaye fu tool toll ñu ngi leen di bàyyi xel ndax xam ne lu ñu seq liggéey bi ñoo ko daan seq di ko doxal di jamono itam ñëpp noo ko gisandoo loo xam ne ñu ngi ñaan sumam teggi ko ci barkab sëriñ Tuubaa kon li ñu bëgg a wax rek mu gàtt mu gudd mooy mboolem ñi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ak ñi ci biti ñëpp ngeen di xamal ne ñu ngi fii waaye ñu ngi bokk yéen jafe-jafe bu baax a baax di leen fàttaliku di den bàyyi xel dañ naan ci barab bii nga xam ni fi la suñu yaakaar tey nekk ak ëllëg muy Cheikhul Khadim yaakaar foofu waaye nekk suñu borom dolli ndimbal dolli sutura te musal la ci mboolem lor yi ngay dégg yàlla na ci dégg di sa wàll yaa yaa sa ñun ñëpp loolu daal moo doon kàddu yi. ngir wax leen rek ni ñu ngi bokk yéen ñu ngi bokk yéen coono yi ni ma ko waxee rek génn dafa doy metti génn dafa doy coona nekk ci réewum jàmbur dafa metti rawat nag ñu gawle ci benn barab ak ni jamono ni mu jafee ak yéen wër itti ni mu waree ñu gawle ci benn barab mënoo génn fenn kooku ku ne xam ne metti na ko ñu ngi masawu ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax na nattu nag su jógee julli lay seet nañu fexe rek ba muñ ko buñ ko rafet su borom daal koy wuñ ñi léegi incha allahu taala jërë ngeen jëf isaakumullahu xeeran ñu ngi fii di leen bàyyi xel fu ñu toll ñoo ko waa daayira bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Xafiya sa kàddu yooyu nga yëkkati di kàddu yi mboolem kilifay daayira Moukhaddamatoul Khidma di kàddu yoo xam ne mboolem koo xam ne dégg nga ko ci foo mën a nekk ci àdduna bi nga xam ne kàddu yii mu yëkkati fu baram nekk lu mu roqe roqe kàddu yi fekk na la fa nga nekk ngir jotal la kàddu yi mu nekk ci tur daayira Moukhaddamatoul Khidma bu ñu yëkkatee kàddu teg ko ci loxol sëriñ Assane Diop mi nga xam ne liggéey bu rafet lay liggéey ci daayira bi bu ko defee danañu ko jottaleel mbooleem jëwrin yi nekk ci adduna bi yi nga xamante ne jëwrini sëriñ Tuubaa lañ rawat nañ bokk doon jëwriñ ci daayira Moukhaddamatoul ma nekk ci barab di yëngatu ci daayira bi mu tegal ñu ko ci seen loxo ñoom ñëpp fu mën nekk ci Afrique ci Europe ci asi ci Amérique fu ci nekk rek ñu tegal nuyoo boobee ak jaajëfal yooyee ak ñaan yooyee ci loxoom nga xam ne kenn ku ci nekk waroon nañ laa fekk fa nga nekk ne la massa coona kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mi ñu ko teg yàlla na ko tegg ci bàkki Seexul Xadim te xamal ne leen ndigal li ñu sëñ bi jox ñu ngay taxaw ci jumaa ji xàmmeewuñu leen yéen ñu nekk foofu ñu téye leen fa jàpp nañu yéen a ngi suñu biir ànd ñun liggéey boobu ndax da ngeen a yàgg ànd ñun démb ak bëkk démb tey tamit noonu la ñuy ànd suba tamit incha allah noonu fa ñu fas yéene ànd wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.